Mbàkke ngi ko may moom doy na waar ndax ëllëg kat ñëpp lay yaakaar ndax yaa wuutu yanant bi alayhi salaatu wasalaam te su ëllëgee jigéen ñi dañ lay topp yow la ñuy gëm ndaw ñëpp ay mujj sa yoon wi gëm la ndax da ngaa wuutu yanant bi mag ñëpp lay gëm te mag ñëpp du ñu mën a am wérug jaamu yàlla ni mate ndaw ñëpp du ñu mën a am liggéey jigéen ñëpp du ñu mën a am borom kër bu ñu sëyee soo ko mayee iblis problème am waroo woon ko koo may. sëñ Modou Diop Paxa wax lii. sëñ Modou Diop Paxa. Ah, waaw waroo woon koo may lii. ëllëg yanant bi daa war a siggi xeetam siggi mhm. te yaay xaadim rasul da ngaa war a siggi iblis waru faa am ndam mhm. waroo ko a may sëñ Tuubaa ni bërët jóg fatu cib néeg ab biir mu génn ni ko waaw góor moo Moodu Jaw Pax wax ji nga wax dëgg la nangu naa ko bi ma duggee léegi dama doon jéem a dàqiwaat iblis ngir nangu li ma ko joxoon <laughs> xool naa bunt yépp mu tëje ma xam ne yónni Ibra Faal la gën a gaaw moom laa yónni woon Ibra Fall nga ko dabe ci buntu Gabon nangu na li ma ko joxoon lépp delloo ma <laughs> waaye kon la ma ci am solo la ma ci amal solo ci wax ja ah. mooy ndaw lu nangu te liggéey te bëgg teraanga mhm. dañ tuubaa ni laa tasdaxil bi rizqi ah, loolu bari na fi de kuy jàng toll ci jàng mhm. nee bul bëgg xaalis laa tasdaxil bi rizqi apprenti bi ci atelier tailleur bi ñu koy ñu koy mhm. na topp maître mu teel a bëgg a ber te ngir bëgg a xaalis. te loolu bari na fi. na fi. boo dem da ngay gis ku bënn léegul métier mu bëgg a nekk léegi patron bi. patron ndax yàkkamti xaalis. ubbi atelier la tastaqil bi rizqi ñu ne ko lu tax mu ne is rabbul wara mutakaffilun rizqa allazi yata'allam ndax yàlla mi lay liggéeyloo di la jàngaloo moo la dencal sa wërsëg bu sa heure jotee mu jox la. sëñ Tuubaa wax ni. maa ngi leen tere nag jigéen ñi. lii wax na ko jeunesse bi. naa i la wax na nga sori ñooy sori mu ni jeeg yi ak diryanke yi da ngeen leen sori la wax waa antazil nag la ca teg te nga beru xale su bëggee am xam-xam xale su bëggee tekki ëllëg day moytandu ko caaxaan te réew mi bari na jeunesse bi dañuy caaxaan rek na nga beru te ngeen daw caaxaan ñu ne ko lu tax mu ni kuy mooy yàlla di caaxaan du def dara ëllëg du jariñ dara am réewam du nekk un bon exemple te du am wërsëg da ndaw loo gis mu të mu dëkke biddanti ak woyofal liggéey nanguut a def dara ku ñàkk wërsëg lay doon te Seexul Xadiim day wax jumma sa waxtaan bu koy tëj ñetti baat la ko daan tëje mhm. day rëdd ci suuf daal di wax ni ñett jarul ñett ñett jarul ñett ñett jarul ñett <laughs> mag ñi ni tekk mbàkke tey nga ñu cee dimbali ni randu see ma dimbali leen bu ñu randu see mu ni àdduna jarul alaaxira mhm. mhm. ñàkk àllaaxiraa ëllëg ngir àdduna kepp te fii day jeex te feedu jeex jaru ko mu ni kon àdduna jarul àllaaxiraa daal di riddiwaat baaraam daal ni tàyyeel jarul ñàkk day wax na dëgg ñàkk te sa moroom yëpp am ah. bu ñee lu la maa tàyyeeloo nee jaru ko day wax nga dëgg nee bànneex jarul gàcce bànneex jarul gàcce topp sa nafs day wax nga dëgg daal ni ñëw leen ma wax leen juróom yoo xam ne war ta juróom Hmm? ñëw leen ma wax leen juróom yoo xam ne damaa bëgg ci yéen seen juróom yi bu ma xam mukk seen juróom yi ci des